dafay waxoon ne wa taxas ak jagoot na def ci baax wakiil buñ ko wakiilee dara ni ko waaj dana jëndal ma malaan ah su boobaa nañ ko jëndal malaan ma yàlla ca malaan ya wa taxay da tënkoon na def ci baax su fekkee dara ni jaayal ma lii it su boobaa nañ ko jaay te lañ ko baaxoo jaaye ak kan koy jaaye falaa yoxu doo bu mu ko jéggi nag dama naan ilaa ala ba in dara dañ ko wakiil jaay bu fekkee wakiil dañ ne dama jaayal ma lii fa loo ñëw na ko talabu sama sàkku njëgg wa xabdoo sañ na ko nga dik nag alis daay ni wala ñu wakiil ko jënd fa loo ñëw na ko xabdul mabdi ngab lu ñuy jaay la dégg nga de waññal na wakiil raddul mahin bi delloo lu ayib in lam yoxin dem ràññeelu koon mu wakiilu aju wakiilam maanaam tey suñ la wakiilee tey ne la demal jëndal ma nangam su boobaa sëriñ bi nee na ah boo sa fekkee ay fan nga koo delloo ndeem nga xam ne nag kala wakiil newuloon ràññeewu ko woon bu ko ràññee nag su boobaa dootoo ko delloo waxtoo ni ba sàkkof na wakiil ngay wax di saman ci ndëkk ba mus manin ak li ñu njëgal la buñ la wakiiloo di la jënd loo su boobaa yow la ñuy laaj nga gëjëw wakiil buñ la wakiiloo di la jaay loo li ñuy jaay la yow lañ koy laaj ah maa la ñu sëbi sëg biralul duñ baraat ci gàncax waaye buñ la bu fekkee da nga ne ah man kat dañ ma jënd loo dong waaye nag joxuñu ma ndëkk kon su boobaa kenn du la ko laaj mu wakiil lañ koy laaj mu dina mene leen ci maanaam dee su la ko laaj mu wakiil lañ koy laaj xabaar ni ne ko yónnee na ma fulaanum diw li tabloo ngir nga jaay kooku kooku diw moom la ñuy laaj waaye laaj astri waxuma su fekkee defal diw moom a yónni ngir laa jënd mën ko ci yow ah kooku nag su boobaa kenn du ko laaj fulaanum yow lañ koy laaj nga ne wa dana dégg nga de sàkkof na wakiil ba tey biir oda bi ci oda maanaam buñ la jaay loo dara ah su ko waajee jëndee lépp lu mu ko fekk ci ayib yow lay jënd maalam nga lam fekk xamul ni yow kat wàcc nga waaye bu xamee ni wàcc nga dong mu dellu ci kala wàcc loolu ma ne wataayi ràññi ko na wàcc ci mut naqam ci lu ñu boyal naqdul baladi da nga naan keew gu réew ma moo ràññi ko maanaam tey buñ nga wàccilee di nga jaay loo dara na nga ko jaay ci keew gu réew ma wala yko ràññi ko nanu yàlla it bii da nga de maanaam ci wakkil maanaam wala bii ci mu wakkil maanaam tey buñ la jënd loo dara na nga jënd ci loo xam ni yelloo na ak mu wakkil li ci waaji dalaa jënd loo tey ne dama jëndal ma malaan na ko jëndal malaan mu yelloo morom ñu ne faaw mun ah ilaa ñu sami ndëree ba tudd na samara njëg ni ki koo xam ne malaanum junni la war a jënd jëm na jënd la malaanum ñaar téeméer ah kon fakkru am nañ deng dengi ci su boobaa dagan la la nga jënd te yellul ci moom da nga doon dagan ak ñett gàtt sëriñ bi dama sama nit ñi ràññiku lay njëgu kem maanaam su nga wakkile dina jaay loo dara ah na nga ko jaay ci njëgu kem waaw waaw ah wa ilaa ndem jaay ko ci njëgu kem xool nga tàngof mu wakkil ah ni ki tey dañ laa jaay loo ci njëgu kem ah yow nga dem jaay leneen kon ñu tànn loo mu wakkil bu ko neexee wéyal njaay ma ah su ko neexee yëpp dellu delloo ko mën ko fuloo ci nit yi koppar mu ngoog ilaamaan dara loo xam ne saanhoo mbiram saalika mooy koppar yooyu li xifati ngir woyfam ni ki lu demee ne ci ay ganaar rek lu loo xam ne classe néew la kon su boobaa boo ko jaayee koppar kenn du tànnuloo mu wattu mu di leen relé ci maanaam tànnuloo mu wattu xesal ci saa bi ni ki soppi wurus di fi def ci xaalis door ko salam ne dalaa jox wurus ni la demal salam ne ma ko di topp ñam nga dem soppi wurus wa xaalis door ko salam ne gis nga tànnuloo mu wattu ah ilaa ñu kon dara boo nekk la saalu mbir ma nga xam ne moom la ñuy baaxoo diggante nit ya di loola kon ñu jëfandikoo noonu ba kam xaalati ak wutalem mu saram ñu jënd moom wakkil koy na loo xam ne ràññeef na ah yow dañ laa wakkil ni la demal jëndal ma nangam ni ki demal jëndal ma fas nga dem fasu jiw nga dem jënd yeneen fas su boobaa def na tànn loo mu wakkil aw sooxal wala marché jëndal marché sàngam ba jënd beneen marché def na ko tànn loo mu wakkil aw samaanan wala jamono jëndal ci suba nga dem bàyyi ba ngoon nga door a jënd fekk yu baax yi jar na kon nag su boobaa def na tànn loo mu wakkil aw bayi wala jaayam yàqala ci lu gën a néew ni ki waa ji daa wakkil dina jaay loo salaam nga dem jaay ko nga dem jaay ko ci fukk nga jaay ko ci juróom ñett su boobaa kon def na ko tànnloo alsari alsrayi wala jëndal daak sala ci lu gën a bari kese ren lu bari dinaa wakkil bi la jëndloo ñu ne demal jëndal ma ci ñeent fukk nga dem jënd ci juróom benn fukk kon nag la nga jënd bari na def na ko tànnloo ah ñu ne faaw mun ilaaka dinaar yi lu ñaari naka lu demee ne ci ñaari dinaar ci arba yi ci loo xam ne njëgam ñeent fukki dinaar la tey ku la jëndloo lu mel ne njëgam ñeent fukki dinaar nga jënd nga dolli ca ñaari dinaar loola moom kenn du ko tànnloo ndax loolu jaadu la wax dëgg xam dëgg def na ko ci def yaa ci jëng dégg nga de daf ñu maaj jël ñaari dinaar yooyu moom wakkil bi naa joxe naa ci ñaari dinaar dolli ko ci ñu ne ko wax nga dem nga ne wayum salama de doonte jébbalee la si laa sama noppi door koo woote ñu def waaye nag maanaam ñëppul féet yàggul ba mu ko jébbalee ba noppi door ne doon laaj ñaar glace nga ne way fa xaaral fu mu wutale moom wàccul te Israël ci jënd la ci moom war na maanaam bu nga ne dama jëndi nangam nga jëndi leneen soo dikkee nag sa war na la maanaam doo ko sañ a delloo yow yaa koy fay ci sa xaalis walam yor in lam yor dafa ndem gërëmu ko mu wakkilu aju wakkilam ndem aju wakkil bi nee na nii bëgguma ko yow ma ko jëndoon yow wakkil yaa koy yow lay yow lay war mu nekk ci ay bi ni ki borom ayib soo jëndee lu am ayib te kala wàkkiloon nanguwul yow la yow lay wax ñu ne faaw mun ilaa ñaq leen jëndee boo néew lu ayib te waxuma moom njënd ma furfatun da nga ne maanaam muy ak am ak lu yomb furfatun muy lu am koom maanaam tey tey waajo dalaa jënd loo nga dem jënd loo xam ne am na ayib waaye nag njëg daa yomb lool ah ba ñëpp ni lii de moom wax dëgg yàlla ni mu ko jaree sax ëpp na ah kon su boobaa ayib bi ñëw jooju dootu ko feeñ dañ naan léegi mu wakkil nangu aw fi bayhin wala mu wakkil ko ci jaay dalaa wakkil ni la demal jaayal ma lii ci xaalis fa dégg nga de nga dem jaay nga dem jaay ko ci lu dul xaalis kon nag su boobaa gis nga tànn loo wakkil ah léegi maanaam wala mu jaay loolu ko nga jaay ko ci lu gën a néew rek ngay wax léegi jaayal ma ci fukk nga dem jaay ci juróom ne pour que ñu tànn loo wakkil mu wakkilu aju wakkilam su ko neexee mu nangu juróom-ñett ya su ko neexee mu ne nanguwuma wala wala bien donte ko bi riba la mu mu- mu dem jaay ko bi misli bi kanam ñu tëj ci xafam yi tey waa ji dalaa wàcce ne la demal jaayal ma xam nga dem jaay xamu jooju demal jaay ko jënde ko wecc ko ko sóol yow nga dem jaay ko wecc ko ko lor kon nag su boobaa def na ko tànnaloo si nam yol tasum dém warul ba nga déggee nag boo ko ja bu ko wàcci jaayee silaasa ci lu gën a néew def na tànnaloo moo kii inam yol tasum dém warul al wakkil wakkil saay dan dalañ ko na al asan wax di gën a rafet waaye boo ko ne jaay ma ci ko mu jaay ci juróom nag nga bëgg a sow mu ne léegi dinaa ci dolli ñaar dërëm jeex na waaye laayin saada waxuma leen ëpp na ndem dolli na ci bayin ci njaay masalan da nga ko ne jaay ma ci fukk mu jaay ci fukk ak ñaar kooku moom amatul dara lay wax aw naq sama lam wàññi ci silaay ci jënd ba nga ko ne jëndal ma ci fukk mu dem jënd far ci juróom ñett kooku it doo wax dara aw istari wala jëndal baa ci fukk yi boo demee jënd ci silaa fasara mu jënd ci ci ci baat wala xadaa mu teewal mu dem leb ba noppi door a teewal fukk yi kooku it duñ tànnaloo wakkil waa su ak safaan la da nga ko ne soo demee jëndal ci baat mu daal di dem daal di àgg daal di teewal ci saat kooku moom itam da nga ko jox fukk yi ni ko boo demee na nga jënd ci lekk door a fay moom mu daal di àgg daal di fay ba tey duñ la tànnaloo saatan wala mun ko jëndal gàtt bi di dinaar ci dinaar fasara mu jënd bii ca gàtt ba is na tey ni ña- eh, bii ca dinaar ba is nay ni ñaari gàtt kooku ba tey kenn du tànnaloo mu wakkil la nit ñoo xam ne jàpp ndiwuñ istraadu maal wéetal seen ñoom ñaar wa ilaa ndeen jàpp ni na wéetal gën a koy la tànnaloo mu wakkil ci tànn ci gàtt ñaari ba bu ko neexee jël bu ko neexee ba aw ak aw akasa wala mu jàpp ci sanam ci sanam aminan aji gàddu ba tey kenn du la tànnaloo da nga koo jox eh, xaalis ñu ko demal salamleel ma ko mu dem wut ku ko gàddu ni ah bala maa salamle da waa ji da ngay indi ku la gàddu kooku desu la tànnaloo yow mokkil aw raxanan wala mu laaju tayle ba tey desu la tànnaloo nga ne wa damina hoo war not na ko nag su boobaa moom wakkil ah mooy warlu tayle ga nag xam la ilmi ko jëkk sa xam bii ca tayle ga wala daak ak jëkk sa nangu su laajee tayle nag ba bañ jox ko tayle ah mooy warlu tayle ga def sa xamagoo ko wala nga nangu wati ni ci tànnaloo mu wakkil ca waxam jëmu ne woon jaayal lii bi sax dem ci wurus fi ci ak jaayam bi darahima ci ay dërëm da nga ko ne demal jaay ko ci wurus mu jaay ko ci dërëm waa ci ak safaan ba te mooy nga ne ko jaay ko ci ay dërëm mu jaay ko ci wurus ndax kooku def na tànnaloo mu wakkil ak ñàkk gaa tànnaloo xaw naa ne am nañ ci ñaari wax wa ana sa teeñoot la bi si lii ci jëfam fii ci wax jamono woon maanaam ci jëf wakkil la afaloo du ma ko jëf maanaam da nga ne billaay nangam du ma ko jëf walbatiku sa wakkil jëf ko da nga teeñ ilaa bi naytu ngari ci yéen a jonjoo ba boo mu ne atareef la ci miin wakkil ci miin ci bayin ci jaay aw siraa in wala jënd aw laqtin aw taxaadin wala fayi ndax ci miin du xam sàtt jaay ak jënd moo tax boo ko wakkile jaay ak jënd dañoo tere loolu wa adduwul tereef la wakkil noonu ala addu wi ci noonam noon tere nañ nga di ko wakkil noonam ala addu min ci noon nga ne wari daa keneen sa nangu bi mu xaala ko ci wut ak wàccil ci salam ci salam kon dafa àndeel jël na loo ñal ko ak sama la njëg tey da ngaa wàccil nit ki ni ko demal lii nga salam leel ma ko ñam maanaam nga salam leel ma ko ñam mu dem salam ne ko di topp ndundam loolu tere nañu nga nangu ndax su boobaa day daal di nekk fas ko day leen ci day nii moo tax loolu la ñuy bañ sëriñ bi nee na wa bay hoo tere na jaay nit dina si ñal boppam su la nit wàccilee dina jaay loo dara nga dem jaay ko sa bopp yow wàccil nga loolu ba tey da nga naan tere nañu ko aha su boobaa sëriñ bi nee na wa mahjoor yi wala mu di ko jaay ay mahjooram tere nañu waaye bi xilaat sa jëkkër laaj jabaram mën na ko ko jaay wa raxti ak jaam bu nañ ko wàccilee dara dina ko jaay loo mën nañ ko jaay sa jabar mën ko jaay sa jaam waaye inam yoo ajum jëm may nañ te wucile wa raxti ak jaam inam yoo ajum jëm may nañ te wuc wa siraawoo tewees la jëndam moom wakkil man jaam boo xam ne yow su ko day gore ali waral mu wakkil yow dañ laa wakkil di la jënd loolu jaam nga dem jënd jaam buy gore waral mu wakkil tere nañ ko man aliman dem xam na ko wala mu yaayam tira ñëwu ko mu wakkiloo aji wakkilam waaye nag dégg nga de bu fekkee aji wakkil la ko ràññee moom day dara nekk nga ne waata xam dana gore jaam ba nag su boobaa alayhi waral wakkil yow da ngaa dem jënd jaam boo xam ni wóor na la ne day gore waral wakkil yow moom mu lay gore waral wa ilaa dama ne woon in alima nag xam ne wa ilaa ndem xamu ko nag wakkil ba muy jënd jaam bay gore waral wakkil xamu ko kon ko dana gore alal amiri waral aji digale muy wakkil wa tawkiloo te def na wakkilu wakkil yow dañu laa wakkil nga wakkilaat keneen loolu tel noonu ilaa laa yanga sa ndare boo yëllul loola bii ci moom bu fekkee liñ la wakkil daa yëllul ci yow nit ki ngay koo xam ne ko am dara yow nit di la wakkil di la jaay loolu ñàkk solo wala nee rek nga wakkilaat ko keneen kooku moom kenn du la ci wax dara aw yàq sara wala bariwul waaye maanaam bu fekkee liñ la wakkil bariwul tere nañ nga wakkilaat ko keneen waaye nag falaa yam asur du folliku saa nii wakkilu ñaare bi acca la wala is folli wakkil yi gisul su fekkee tey dañ laa wakkil lu bari ba nga wakkil ci keneen su boobaa nag ah buñ la folle it ndax ka nga wakkiloon moom folle nga ni wasili daaw li ci tere ak nangoom moom mu wakkil in sa daal jëm jël na wakkil bii ci wakkilaat nga xam ne dañ koo wakkil lu yàlla ci moom mu dem wakkilaat ko keneen xam nga loolu jalgati la ndax su boobaa tere nañu mu wakkil mu nangu am moom sax bu ko neexee it nangu rek ba tey saawi daa ni am na ci ñaari jëm ko sala ñam duwal nga ni wari daaw tere nag nangoom moom mu wakkil bi mu xaala ci wutale wakkil ci salamin ci salam in dafa am dem jañ na sama nañ dëgg bi mu samaaw ci lam ko tuddoon da nga koo jox fukk ni ko salam leel ma ko dégg nga de di topp ñam mu dem daal di salam lay ñaar fukk di topp ñam loolu tere nañu ko nangu ndax dafa ëppal lañ ko waxoon aw bi day nin wala ci bor da nga ko jox ci laa ni ko jaayal ma ko ci fukk mu dem yu teew mu dem daal di koy jaay ci fukk yu jëmu bis loolu ba tey tere nañu ngay nangu bor ba ndax su boobaa ba tey day daal di nekk fat ku day nin ci day nin kon nag wa bi ak léegi da ko jaay ci fukk yu jëmu bis tere nañu ngay nangu fukk yu jëmu bis yooya in faata ndeem faat na silaasa ca loxol aji jënd ji loolu ngay wax su boobaa nag nu ñuy def comme da nga ko jaay la woon teew mu leble ko wa bi a jaayeef na bor ba ba nga xam ne mooy ceegoo gee di fukk ya léegi dañ naan kuy kaay ñu jaay la ko ci marchandise benn waay ne man misaal su ko jëndee moom di topp fukk ya ñu jëmub dikk fa in wafaa ndem ñu daal di jaay marchandise moom muuru mu joxe fa in wafaa ndem matal na marchandise bi des na ci tudd ga comme da nga ko jaayoon ci fukk yu teew mu leblee ko fukk ñu jaayee fukk yooya marchandise sum léegi-léegi ñu daal di jaayaat marchandise mi mu mat ku ñu nga tuddoon ko it baax na al xayma ji wala mat xayma ja te ba nga ko waxul woon jënd njëkk léegi mu dem leble ko ñu jaay bor ba ci marchandise mu teew marchandise ma mat xayma ja ba tey baax na wa ilaa ndem matul tudd ko ca ba nga ko ne jaay ko ci fukk dégg nga de matul xayma ja te ba nga tuddul benn njëkk kon xarima fay wakil dégg nga de mooy fay la koy mottul maanaam ba ma sëkk waaw waaw kon daal bu ñu jaayee bor ba te matul tudd ga ni ki da nga ko jaay ko ci fukk mu dem leble ko nit benn waaye jënde ko marchandise mu jaay marchandise mu muy juróom ñett mu mott li ñaar dërëm bu matul xayma jeex mu mott li wax boobu mooy loolu sëriñ bi ne wa insana ndem laaj na la wakil gannaaw ba nga ko jaayloo ci laata ci teew mu dem leble ko xurma tas lay te fay tudd aw xayma wala xayma ja mu ne waaw la nga tuddoon dinaa ko mën a fay wala xayma ja waaye wayes bir mu mun lekk da daay ngir la ñëpp ko mu ne bàyyil ba ma fay li njëg jee wayet ma jëñ albaax yi ndeketi kon jaa sama dagg su boobaa bu demee ba dig ba jot mu fayu bor ba yàlla dogal bor ba ëpp la nga ko waxoon ni ki tey mu ne la fukk nga ma ko jaayloo woon ci teew waaye leble naa ko ci fukkoon ñaar soo mu ñëwee ba dig ba jot su ma ko fayoo ci fukkoon ñaar di ci yëpp la lépp loolu jaa sama dagg seen kaanam dem lekk na xayma ci xayma ci laata lëpp la xaadik dégg nga de di cam bor ba fekk ngay wax fàq la wala lu ko gën a néew nga xam ne xëy na si laata cam bor ba la wala lu ko gën a néew su boobaa kon mu dal wax boobu yam fa leen ween amar woon dem digal na ko di bay ci jaay di bay si la ci jaay si laa fata maamut salam le ko si taana bi topp ñam soo ko dema koy def ko sif lay tudd ko ba nga ko ne jëlal sama fas wii soo demee nga jaayal ma ko andil ma xaalis mu daal dem salam le ko moom di topp ñam soo ko dema koy def ko sif lay tudd ko te ba nga ko ne jaayal ma ko ci fukk ala xëy na ko wala xëy na ja ndem ba nga xamee ne tudd ñam loolu lañ koy fay moom bu ko defee nag waxtu ne def na demir li ngay wax di taana ca ñam ma laaj yi ba ca digg su boobaa def na demir li ñam ma maanaam comme da ko salam lewoon di topp ñam ah léegi bu ñam ba dikkee heure bi sa bi ak jaayee bu buñ ko jaayee mu mat la nga ko waxoon fa lillaahi am bu manqué nag waxaari ma fayet na wakil a naq sa wàññiti ni ki da koo jaay ñam ma manqué la nga ko waxoon kon nag mu dikkati mat li njëkk wasi adi ndogal ko lay lakka ñamal waaw buñ jaayee ñam mu ëpp la nga ko waxoon nag ni ki da nga ko ñëwoon fukk mu salam le koy topp ñam ñam ba ñëw ñu jaay ko ni fukk ak ñaar yaa moom ñaar dëgg ci topp waaye wa dama la war a moom wakkil in ak bari leen lëb le na day la bor ba wala li ci seer ko da nga koy wakkil ni ko demal fayal ma diw mu dem daal di koy jox xaalis ba waaye wutuñu koy seedeel nga dajak waaja mu weddi wakkil lay war aw baaxa wala mu jaay di ko taanan ci dana ne ci ñam naka dañ ci teew mbaa loo xam ne laay baaw def ko jaay bii jënd ñam da nga koy jox ci laa ni ko demal jaayal ma ko mu dem jaayee ko ñam lu teew ñu ne ko lii kenn du ko jaayee ñam su boobaa kon su boobaa dégg de mooy wattu wa daxaate mu woy lis na ndigal ne yaa ko ko digal fa noo see ñu ko soog moom ni ko déedéet kon su boobaa wakkil lay war maanaam awan kara wala weddi alxab da nëbb dégg nga de fa xaama sax da nga ko yónni ni ko demal fayu li ma bor tey tey fayu la mu dem dikk dégg nga de ni man tey seen joxuma dara fa xaama taxaw bay nitul ay seede ne ah kay jox nañ ko wasi fa fayu def seede bay nitul ay seede di tànk sànk wasi dem indi seede yi ni sànk la ñu ne ko yow yaa tan loo ko bopp yow yaa ne woon nëbbu waa ji taxawal ay seede ni jox la la nga dem indi seede yi ni réer kon yaay fay ndax da ngaa seen loo sa bopp moo ne kan seede yi seen loo nañ kan nit yaa de ni kit lebaa kon lebaa kon fay su fekkee da nga ni ameel na ma dégg nga dem mu weddi ni man mosuma laa ameel nga daal di indi seede yu ni ba mu seede yu fekkee ba nga koy lebal mu dem indi seede yu ni fay naa ñu ne ko yow da ngay fay ba tey mu ne walaw xaala doonte waxoon na xëy mu fay duñ ku ñu koo xam ne duma ku ñu wattil wattil mu fawat mu ne xabattu nam naa de la nga ma yónnee woon waaye nag wattali ko sànku na bari amu dañ tey da ngaa yónnee woon ndik dégg nga de wattiloo ko wattil mu fawat mu ne wax dëgg yàlla la nga ma la nga ma yónnee woon day jël naa ko waaye nag réer na ah su boobaa nag ñu ngi ko war demal walam yab walam yabra waaye du dañ nag alxarimu aji kañ doon fayu ilaa bayn dal ci seet su fekkee ne da doon fayu bor dikk ni la man man fayoon nañ la ko waaye bor ba réer na ah kam doon fayu jënag moom bala moo dañ na am ay seede na am seede yu ni maa ko ko jox ci yoon yu la réere kon su boobaa nga ne wala si ma war na al mu wakkil mu wakkil pour ma samani fay njëgg da ko wakkil di ko jënd lool ah mu dem jënd si laata andil la yàlla dogal nga jox ko njëgg mu di ko yóbbu yàlla dogal njëgg réer da nga fayaat geneen njëgg ilaan gi si ne ba bu muy jëtti dina bii ca borom ba seen njëgg jëttiwul ca borom ba bu ko dee yóbbu mu réer yaay fay sàrtal nag nañu fawul jël dañu woon njëgg moom mu wakkil la ko ñeel wakkil dëkk jënd bi waaye su fekkee ne bu muy jënd si laata da nga koo joxoon njëgg mu yoraale ah yàlla dogal njëgg réer sa yoon wa kooka nag su boobaa bu la neexee nga ni jëndatuma bàyyi waaye nag loolu lay mën a wax nga waaye fële nag moom comme da nga ko dafa jëndi ba ñëw andi lam doon jëndi nga jox ko njëgg mu di ko yóbbu njëgg réer sa yoon wa da nga joxe waat beneen bi fii nag da nga koo jox njëg bi mu muy dem ba ca yoon wa di jëndi lam war a jëndi njëgg réer ah kon bu la neexee nag nga ni ko kaay topp wasi bi xa dëggaleef na wakiil frais bi ci delloo si dégg nga de ah boo déggee def na dëggal wakiil frais bi ci delloo si mooy la nga ma joxoon delloo si naa ko mun la delloo si woo ko wakiil la ñuy dëggal kan moo di nag ku ñu dénk jox naa la la nga ma dénkoon kooku moom la ñuy dëggal laa yokkuru def ko yeexe moom dénkaan la is aadi ngir dikk ay seede maanaam bu la waaye dénkee dara ah dina ko laaj nga ne ko bala ma la koo jox da ngay indi ay seede déedéet aha xanaa boog bam la koy jox moom itam dafa am ay seede bu fekkee nag bam la koy jox dafa am ay seede ah kon nag su boobaa bu la neexee nga ne ko may itam da ngay indi ay seede rek ma doon la koo jox nga ne wali ahadil wakil ni ñeel na kenn ñaari wakil istibdaadu wéetu maanaam ñaar ñoo xam ne dañ leen a wakil ñoom ñaar kenn ku mu ca neex mën ngaa wéetu dégg nga de maanaam def li ki tey ñun ñaar dañ ñoo wakil ah kenn ku nekk ñun la jaayal ma lii kenn ku ci ne mën ngaa wéet jaay ilaa li sàkk ngeen a sàkk bu ñu sàkk leen nañ ni leen ah yéen nag bu kenn wéetu kenn ku ci nekk ah na na fekke morom ma buy def kon nag su boobaa kenn sañu la wéetu nga ne wa in biita ndeen jaay nga yow wakil aha wa baa a jaay way wala nga ne wa in biita ndeen jaay nga yow mu wakil da nga maa wakil di ma jaay loo ma génn nga jaay yëf yi wa baa a jaay wakil fa la woon ku jëkk rek ka ñu jëkk jaay mooy moom la ñu jox ci laas ñu ne faa mu ne ilaa bi xam dindina ci ñëpp su fekkee nag ki ñu mujj a jaay moom ñëw na ba ñëpp ci laas kon nag boobaa kañ jëkkoon a jaay ñàkk na wax boobu yow sëriñ bi ne walakka ñeel na la ngay wax yow mu wakkil xam di salam yi ñëpp salamam lakk si ñeel na ko dangaa jox nit xaalis ni ko demal salam leem la ko salam leel ma ko di topp nangam léegi waaj a sàkk kam ko salam le woon indi loola ñu wóor ne lii kat yaa ko joxoon xaalis bi nga ko salam le woon bu la neexee nga ñëpp yéen sabata ndeel sax na da nga def salam sa di bay nit yi ci ay seede yu wér ni sa wakkil wa nga joxoon xaalis ba moo ko joxe woon kon su boobaa mën ngaa dali jëlaat la ñu ënd mu ne woon xawlu wax ja lakka ñeel na la nag yow mu wakkil init daha ndéem bu wooyee ne wakiil gis na ndigal wakiil dafa soppandiku ci sa alal moo xam dafa jaay wala dafa jënd nga ni ko def loo ma la woon loolu mu ne yaa ma ko def loo yow la ñuy dëggal loolu mooy wax boobu aw sifatan wala melokaan loxoowu ñëw na ko ni ki dafa dem jaay ko nga ni ko deet dama la ko tànn loo woon yow la ñuy dëggal ilaan yestirien dare boo jënd na moom wakiil di samani ci njëgg fasaam ta nga tudd ni ko amat am naka naka yow amat tuhoo digal nga ko di xëy di ci leneen dégg nga de su fekkee da nga ko ne woon man malaan naa la jëndloo lu dem jënd leneen su boobaa yow bu wa ala fa dana jiw dégg nga de moom wakil ni yaa ko yaa ko lii mu jënd nga ko jëndloo woon su boobaa mu dem yoonam. mu di leen lëleel ba tey ci wax ja waxi wakil la te xaw lii naka waxam ngay wax moom wakil amarta digal nga ko di bay ci jaay daal ci fukk wax baat te jaadu waxul ta nga wax yow bi ak xarit ci lu gën a bari nga ni ko déedéet kat man fukk ak ñaar laa la waxoon su boobaa wakil la ñuy dëggal boo faat tafaat almat yow la ñu jaay la. da nga de bis waale ay nit dañu jëmm ja nga xam ne la ñu jaay la faat la jëmm ja nekkatu fa aw la nekkatu wala faat waaye walam talif na nga wóor ji ci fukk ak ñaar yooyu nga wax ko nit wàcce la ñuy dëggal wax boobu yom ko nga ne wayn wàkkal toon dem wàcce nga ko ala su jaay ci jàpp ab jëbeer fa baasu mu yónni daa ca jëbeer ba tey da nga koo yónnee wakkiloon ni ko jëndal ma jëbeer mu yónnee ko jëbeer ba ñëw fa wuti at laaleef ko su ma xadima toog mu ñu bisi bi uxraa ànd ak beneen jëbeer waxaala mu ne xaas yi bii jëbeer nag lakka ñeel na la waaye wal ulaa bu jëkk boo ba la jëkkoon a ñëw wajeet um denkaan la kon lu seet fay lam yu bayin ndeen diralu ko waxala fa te mu gin ah kon axataxa mu jàpp jëbéer ba nga xam ne mooy bu jëkk ba su boobaa ñu ne faaw kon bu fay nam yu bàyyi ndeen biralu ko ah xala fa ala fa te mu gin ni man bu njëkk ba dama la koo dénkoon kon axataa mu jàpp ko mu ne ilaan tefata dara boo faat la dëkk ba din tur dama nekk doom ba fekkee jëbéer bu njëkk bi jot naa am doom aw ta jërin wala gannaawal su boobaa nag kon jeex na dootu ko mën a jël ñu ne faaw mu ne ah mu ne ilaali bay ndara ci ay seede su fekkee ay seede ñëw nañu nag ne ah wax na dëgg de bu njëkk boobee mu yónnee woon day moom dénkaane la woon kon nag su boobaa gis na ko ko delloo wala si mat ko war na la yow yow laamir yow mi ko digaloon ah alxura bu mujj bi moom ngay it wayen amarta woon dem digal nga ko bi neatin ci téeméer nit dégg nga de ne ko jëndal ma jébéer ci téeméer fa xaala mu ne axasuwa jàpp naa jébéer bi neatin ci téeméer waxam si na ak juróom fukk téeméer juróom fukk laa jënde jébéer bi xëy nam tafum dem paatu jébéer ba kon sa tànn loxo dégg nga de seex saa ci jàppam bi maa xaala ci la mu wax mooy téeméer ba ak juróom fukk wa ilaa ndem faat la nag lam yal sam ko waru la ilal mi atan dara téeméer dong dégg nga de wax boobu yom foofu nga ne waye lu dem delloof la daraa yi ma ko say dërëm li say sëngil sottiwaay dangaa jël ay dërëm jox nit ni ko salam leel ma ko di topp ñam waaja salam le ko muslimum ilayhi delloo si waat dërëm ya dégg nga de ndax ni dërëm ya dafa yàqu léegi mu seet fayin arafa ndem xam na ko maamooru ko sa ndaw la nga ko joxoon la ci mat ko war na la bu dikkee ne waaw waaw dërëm yi de mooy yema ko joxoon kon su boobaa dërëm yow war na la dégg nga de nga indi yeneen remplace ko muy waa jàmm yàlla wayin xabatta doonte nga boon nga muslimum fihim du tee dërëm ya dana la waar am moom kay bu fekkee nga bëggoo muslimum fihima du la war dégg nga de tawi laa ni am na yaa jëntal soo sala ñu mu doon dama ne woon fayin arafa ndem xam na ko maamooru ko ndaw la wa ilaa ndem ndaw la nga ko joxoon xàmmeewul dërëm ya kon mu seet fayin xadilahaa ndem nangu na ko nag moom xalas ta nga ji comme moom nangu na dërëm ya te xàmmeewu ko xalaf sa nit ñëw yow laa mer ci ko ko joxoon ne ko maa defax ka yow day joñuloo ilaa ji yaa dem dana rafet ci kanam seen ñu ko ci am nga ne ko man ñu rafet laa ñu joxoon de dégg nga de bu ko defee wala si matu wax dam ya maamoon mooy indi ko remplace mu ne waa jaam yàlla mutlaqan ba nga déggee da nga jël xanaa moo xam maamoor ñàkk na wala woomal na aw wala moom kay ba ngay ji tax yi xanaa li ut min maamoor ñàkkul maamoor ñàkkul ndaw laa tax ngay ji waaye bu woomalee doo ji ba tey taawi laa ni am na ci yaa jënta wa ilaa dama ni woon fa in qabilaha ndem ndaw la nangu na ko wa ilaa ndem maamoor nanguwul dërëm yëpp ba ko waaji andiwaatee xalafa na gën maamoor kasaalika naka la laamir doon jine dégg nga de ni moom jëñul lu may lu rafet bu ko defee wa xalafa jin albaayu aji jaay ji te mooy yow it nga jiñ ne may itam jëñuma lu dul lu rafet dégg nga de loolu ngeen di gën yéen ñaar su ko defee yéen ñaar ku ci jiñ tëri waaw waaw wa fi mubtada ni aji jëkk ji nag yéen ñaar kan moo ci jëkke ndax laamir mi joxe woon dërëm yi mooy jëkke wala maamoor mi nga xam ne moo jëñe woon ñëf yi mooy jëkke taawi laa ni am na ci yaar jënta su boobaa dërëm ya daal di war nag ka nga xam ne moo doon aji jaay ji mooy muslimun ilayhi ñu delloo ko ko yéen ñaar ngeen dañ wax boobu yem foofu sëriñ bi ne wala xasala folli kot la wakkil bi moom ci wakkili ci deewu aji wakkilam in alima ndem xam na ko waaw waaw su fekkee tey yow wakkil ci la wakkiloon dafa faat folli ko way laa neem xamu ko nag parce que laa ne am na ñaar jantal ci wakkil dina folli ko ak ñàkk daa folli ko ba fi asli mi ci folli ko dégg nga de wakkil di asli mi ci folli mu wakkilam tey dañoo wakkil waa ji mu wakkilaat keneen léegi ñu folli ko jëkk ndax kon léegi wakkilu ñaareelu moom dana folliku wala mu yàlla xamu ko am moom kay du xool ci folliku xilaaful am nañ ci wute. sëriñ bi ne wax ak jàmm yàlla ndax laatal sama warul wakkil ndax wakkil googu ñu doon wax léegi warul ah te kon ku mu neex ba aw wala moom kay ba nga déggee warul xanaa il waqaat ngeen tabbine bi ujratin ci yool aw juulin wala juul su boobaa fa atte ba atte bu wakkil ba kahuma ni ki yool ak juul lay doon te mooy bu fekkee dafa tàbbee ci yooloo wala juul kon su boobaa dañ koy jox atte bi yooloo ak juul te bu dee yooloo dana war fi mu jël di takk di waaye bu dee joon du war te xaras yi dégg nga de ah wa ilaa li am bu tàbbi ci yool ak ci joon kon lam tal tam warul wakkil ba ku mu neex ba tere duñ am nañ ci dégg dégg baabul sëriñ bi nee na yoo ko fi def na jàpp al mukallaf mukallaf bi la ajiriñ ci dul yéer bi xiraar yi ci tuddam ak tuddam boo ko déggee mooy lépp lu mu wax ni amee naa ko na diw def na ko nangu li ahlin ñeel ko yéenoo tuddal moo tax ko aw dag ak yu demee ne ci noonu lam yu kasibu koo xam ne seen loowu ko kamu tuddal waaye boo ne amee naa diw nangam mu ni day fen su boobaa tudd ko waru wala ñu taam di su ko tuumaale su ko maanaam kon nag mu wattandi ko koo xam ne boo ko tuddee ñu tuumaal la dana ci ñëw kal ab di ni ci jaam yo dégg nga def na ko jàpp ci tuddam waaye si xëy maa ni ci lu dul alal ni ci jaam bu ne maa dagg loxoom nit ci tey ak lu demee ne ci noonu wax rek ak kullu moom itam def na ko jàpp ci tuddam wa maridin ak ku wat moom itam def na ko jàpp ci tuddam in wari soo dem dana ko donn wala duñ doom mu tuddal leeq ode ñeen ko gën a sori doom maanaam daal mu tuddal ni amee naa diw nangam te kooko di ko sori aw li mu laa tafati wala mu tuddal ñeen ab xaritam maanaam koo xam ne ku wopp dafa tudd ni sama xarit sàngam amee naa ko def na ko dëggal aw li man wala mu tuddal koo xam ne lam yori sudu ko donn ba tey def na ko dëggal aw li ma wali haali wala ku ni réere mbiram ba tey def na ko nangu ke saw jin nekk jabar wa li ma koo xam ne xanas na bug doom bañee lam laxaa ñeen ko moom itam mu tuddal ko fekk jabar joo xam ne ñëpp xam nañ ni bañ na ko kooku boobaa tudd googu def na ko jàpp lu wér lay doon aw joxe la wala réeréef mbiram ba tey bu ko tuddalee ñëw na ko wala bañu ba tey tudd ga moom itam def na ko jàpp boo wari soo doon ko nag innun doom aw banoona wala ay doom yu góor ila an tan fari dandare boo weetu na moom ndaw sa bu sakke bi ci doom yu ndaw bu fekkee ndaw sa def weetoo doom yu ndaw nag boo ko tuddalee dañ naan da ngaa yërëm doom yi duñ ko nangu wa maa inaa sin su fekkee am na doomi jigéen wal asabati ak gëñe nga tuddal doomi jigéen ya dégg nga de bàyyi gëñe ko ndax kooku def na ko nangu ak ñett daana nga xaw laa ni am na ñaari wax ñu tënkee sa di ha maanaam saw jëtu jabar ak bintu doom bi jigéen ak amu bay tax léegi su fekkee tey da ngaa tuddal saw jëf jabar ñu ne ah bu ñu xoolee ne bintu doom bi jigéen de moo gën a jege jabar def na nangu tudd waaye bu ñu xoolee ne amu bay tax moo ko gën a sori kon duñ ko nangu muy xawlaani mu ne mu jëlee ne xaw naa ne mu ne ko iqraar yi ni ko tuddam lin wala di ñeel doom alxaaqi ji aji mooy woy juróom doom joo xam ne jubóowul ak bàyyi ba bàyyi bi ne amee naa ko nangam ndax tudd ga dana war dégg nga de ngir seet ñàkk jubóo ga wala moom kay du war ngir seet ne doom la mu del ci xawlaani bi aw lu nii wala mu tuddal ndeyam ndax moom itam ndax def na ko nangu ak ñàkk daa nangu xaw naa ne aw li ànd man wala naka ka nga xam ne lam yuqib tuddul loo ñeen ko ak adamoo gën a sori dégg nga de wa aqraba ak ku gën a jege maanaam ñamu tuddalul am na ci ku gën a sori am na ci ku gën a jege ñu tënke lu hu ha dafa tudd léegi lu mu dafay nekk ak uxtu ak am mu tuddal uxtu bu ñu xoolee lu moo ko gën a jege te tuddalu ko def na ko nangu waaye buñu fekkee ne am mu bàyyi tax ko gën a sori dégg nga de te tuddalu ko kon nag su boobaa ba tey kenn du ko nangu kon nag su ko defee nee na wala laal mu sawi xuma aji yemoo ñaari doom nga tuddal kenn ka bàyyi ko def duñ ko nangu wala xarit bi ak ko gën a jege da ci ne maanaam tey yow dangaa fekk ndey ak mbokk mu jigéen nga dem tuddal ndey bàyyi mbokk kenn du ko nangu mu dul daa sëriñ bi nee na ah mu dul leen leen ci ñàkk a war a tudd bi te akar ni ni ki nga xam ne sànnatin ba at wa ana man ukkur bu naa tudd kooku bu boobaa loolu waa ji dana ne amee nga ma nangam nga ne ko yeexee ba at bu boobaa ma tudd loolu du tudd bu boobaa war a jax dana lu ko soomatin jëm ci layoo rek mu dee na delluwaat saxal ab layoom wuti maanaam preuve bu leer wala sama war na tudd li am nañ ñeen mbéemul yéen wutee ndem laa def na ko te wutee ko wasilne ko yàqali ci lu gën jaay néew ci biiru mbéemul soo nee doomi ndaw si doom ji mu ëmb amee naa ko nangam ah su boobaa dana war ndeen ndaw sa am na jëkkër ji koy laal dégg nga de wala sang bu amee doom li fee juróom benn weer la nga tuddoon da nga ko ko jox wa ilaa ndeem nga xam ni ndaw sa kenn laalu ko amul jëkkër amul ab sang nga ne doomam ji jox naa ko nangam kon nag ah dana war tudd gën yaag seen ci gën jaa bëri biiru mbéemul sëriñ bi nee na wasu wee yemaleef na bay na taw umeñ diggante ñaari seex nag boo nee mbéy mu dul duumi amee naa ko nangam bu juddoo bu góor baag ci jigéen ba ñooy bokk loolu seddoo kenn du ëppale ilaali bi yaa ni fat li ndere boo defa dëgg ngeneel dafa ne nag na bu góor bu ëppale kon su boobaa ñu jëfandikoo loolu nga ne tudd nag maa saa yekkoonu mu yekkoonu dana nekk di àlla ci war na ma wala ane war na ma tudd la aw si si ma ci war a nekk na ci sama baat aw indi nekk na fi man aw xas wala jàpp naa ko mun ko ci yow bala waaye yow dana ameel na ma nangam nga wax ko kenn ci baat yooyu war na wala saada doonte doon wala insha allahu donte da nga caa dolli insha allahu war na aw xadaa wala bu ko yàlla attee war na aw waa tofoo wala mayoon nga ko lii ñeel ma waa ji la ne ameel nga ma junni nga ne ko mayoon nga ma ko war na aw bii too wala jaayoon nga ma ko war na aw fay too wala fayoon naa la ko war na ba ba ngay saxal fay naa dégg nga de nee na aw axdal ta nii wala lebaloon nga ma ko kay war na aw ma axdal ta nii wala lebaloo ma ko tudd la aw lam tuqri nii wala xanaa aw aw ma axdal ta nii wala ana lan nga ma lebaloon ati waa ji la ne ameel nga ma nangam nga ne ko lan nga ma lebaloon loolu tudd la aw lam tuqri nii wala dégg nga de xanaa lebaloo ma woon nangam waay kooku tudd la aw saahir nii wala jàppandal ma ah dégg nga de daf leen ameel nga ma nangam nga ne ko jàppandal ma tudd la aw itta sima wala mandaxe ko mi ni tukkee ci man tudd la aw yàq dee nag wala dinaa la fay al yawma tey tudd la aw naxam wala waaw aw balee wala balee aw ajal wala waaw yëpp jawab bi muy tontu li sa waxe aji ja ja ko ne woon alay sali déddi ñeel ma indaka fi yow xanaa yow amee loo ma téeméer waay mu ne naxam wala balee wala ajal ba tey tudd la aw la set wala déddi ñeel ma li ñeel ma may suratul waa ji ne yaa waay ameel nga ma téeméer nga ne ko ah dégg nga de fi mu nekk de aw moom koom tudd la waaye laa du doon tudd nag sa waxam joon ukkëru danaa tudd waa ji dana ameel nga ma nangam nga ne ko ukkëru danaa tudd loolu du loolu loolu du tudd aw xale ya wala war na ma aw xalaa fulaanin wala mu war di yàlla dina waa ji dina ne ameel nga ma nangam nga ne ko ala ya aw xalaa fulaanin su boobaa loolu du tudd amin ay darbin wala taxusaa ngay jàppe téeméer bi maanaam min ay darbin banka taxusaa ngay jàppe téeméer bi maalif lu mag ak xarit sori na la min haa ci moom ay darbin taxusaa loolu du tudd maalif lu wati li ci waxam jamono woon ataayaa ci ba dikkee wakkili sama wakkil ndax loolu tudd lay doon wasi fii ak yu koy niru ah wala ba ma seet ak yu demee noonu ndax tudd lay doon xawlaani am nañ ci ñaari wax karam tuuti awi kasin wala mandaxeel aw xus wala jàppal ci néewul mi nii xawlaani am nañ ci ñaari wax mu dina ne leen ci maanaam xawlaani bi te lakkañal na alee ci man arful junni ci maa ca nga xam ne alamu dinaa xam ko ndax loolu tudd lay doon ak ñàkk nga doon tudd mu dal ci xawlaani aw azimnu wala li ma jot amee naa la junni ci li ma jot ndax tudd lay doon wala doon tudd xawlaani aw xil nii wala ci sama xam ndax moom tam tudd lay doon wala doon tudd mu dal ci xawlaani bi nga ne wala ci ma war na junni ba il noo ten del rek def na ko ci alfin ci junni min samani xam ri mu tukkee ci njëgu sàngara waa ji dafa ne amee naa la junni ah waaye nag ci njëgu sàngara la nga ni ko déedéet junni bi kay du njëgu sàngara su boobaa kon junni ba war na ndax dañuy compter ni min samani xam ri jëm tudd ak réccu la aw xabdin wala mu ne ko amel naa ko junni ci njëgu jaam waaye lam aqabit nga bu ma jàmb kon it junni ba war na dégg nga de wala ka dax waa u ni ki bu wooteem moom mu daxa moom mu daxa alayhi riba riba maanaam dafa ne amel naa ko junni waaye junni ba nag riba la wa aqaama mu daal di taxawal baynatan ay seede li àlla annahu naka moom kat rabahu riba wante naag dégg nga de mukkarum la hooma fi alfin ci junni mu taxawal ay seede yi ne ah mas na ñoo ribante ci junni de waaye comme moom moo ne amel na ko junni waaye junni bi riba la te seede yi rajeewuñu kon ba tey junni ba war na waaye laayen aqaamaha waxuma dem taxawal na nag moom muqir ala iqraar mu daa alayhi ala iqraar mu dexee ci tudd mu dexee mu taxawal seede yi ne annahu naka moom lam yàqa mas sa tabbi bay bay no maa seen diggante ilaa riba ndara riba tey nag mu dexee dana ni anal nga ma junni nga taxawal ay seede yu ne seen diggante lu may riba mu fi cooda junni ba war ndax junni bi riba war alay sëy wala junni naa xaman sàngara dégg nga de daal ci junni dégg nga de kooku junni ba war ndax sàngara moom ku leen njëgam sari àlla nguuku ali si wala jël naa abdan jaam daal ci junni wala ak bit waaye nga bu ma jàmm ba tey junni ba war a gul abaqaratu wala tudd naa di saa ci nangam wa ana man sabbin gone laa booba kooku ba tey loolu warul te ana ni ki man de mu barsamul ba ma koy tudd damaa am feebaru barsam mooy feebar buy waxtu kooku warul in ulima neem xalis na taqaddum moo jiitu dégg nga de barsam ba ci moom nga xam ne xamoon nañu amoon na aw aqara wala mu tudd intisaara nga gàntal nit da dalaa jaay dara ñëw bëgg koo jëndaat nga ne ko ah loolu may naa ko sama doom jee kooku nag dégg nga de du tax doom jëlaat di koy moom de loolu gàntoon rek la aw bi xam wala mu tudd nag su ko nga gasal waaye dalay lepp nga xam ni du la fay ma ne ko ah Seydou ne sax de lebal na ma ab junni te maa ngi ko ciy sant kooku su boobaa junni boobu wóorul al na sëy wax bi gën a wér waxu dina nangoor la ajalu muslihi dugu tamam si bayen ci njaay maanaam waa ji dalaa jaay yow baykat nga nga ne ah lii mu ma jaay kat daf ma ne bu tawee laa koy fay mu ne léegi léegi nga may fay yow la ñuy dëggal laa ilaaha illa huwa le su fekkee leb la nag léegi da ngaa ni bii de moo ma lebal lii waaye nag digg jotagul mu ne ah kay digg jot na moom la ñuy dëggal wa tafsiru alfin la nga wax ne tafsir junni si alfin si anel naa ko junni wa dirhamin akub dërëm wa tafsiru alfin sëriñ bi nee na def na nangu tafsir alf junni ci alfin ci amel naa ko junni ma dina ak ak dërëm waxaati min bu ne amel naa ko jaaro waaye si soo njong la ni ñeel mën a saxal ci toftale kooku it ba tey def na ko nangu maanaam bu ne amel naa ko jaaro waaye njong la moom maa ko moom def na ko nangu laaj ko bind ci fëkk soo ne amel naa ko jaaro bii dama ko fëkk waaye nag njong li moom maa ko moom kooku am fa xaw laa ni am na ñaari wax waaye laa bi gis indi ne nangu mu firee ko ëkk bu baa ak bunt fii ci wax jam noonu loo ñeel na ko minaa ci daal ci jële kër soo ne loo ñeel la dimi daal ci daal ci jële kër nangam ñu wax la nga bëgg ko firee benn ëkk wala ab bunt ni moom rek la ci am duñ ko nangu alil ardi wala nga ne ñeel na ko ci suuf si nangam ñu wax la nga bëgg ko firee ak ëkk wala bunt duñ ko nangu ka fii ne ko da ko joree fii dafa ni fi xaaj si daari wala fi lardi alal seen ci wax di gën a rafet wa maal bu ne alal naa ko alal nisaabu nisaab la koy jox wala sunu la gën a rafet nag tafsir woo mooy ak firéem mu ne ko sëy ni ki alal naa ko lëf moom itam na ko firi wa kasaa bu ne alal naa ko nangam moom itam na ko firi wa su jëlee te jëf na nag loxoo ñeel ko maanaam ba ba mu koy firi kon nag dafa ne kasaa rek wala yu demee noonu dëgg wax asin bu ne alal naa ko fukk wan ni seen ak kerk fukk ak nangam kooku su boobaa moom itam na firi nangam ji waaye nag wasaqat rotat na si kamee tin ci lu demee ni ki téeméer wa sëyin ak lëf daf la day rot su fekkee ni dafa dem ba deete biralul loola su boobaa loolu rot wa kasaa bu ne alal naa ko nangam dirhaman ci dërëm moom it wa isroona ñaar fukk la koy jox wa kasaa bu ne amel naa ko nangam wa kasaa ak nangam ahadun benn wa isroona ak ñaar fukk la koy jox wa kasaa bu ne amel naa ko nangam kasaa nangam ahada asra fukk ak benn la koy jox wa bitun bu ne amel naa ko nangam kon salaas su ñett lay doon ci kanam tuuti aw drahima wala mu ne amel naa ko ay dërëm salaas su ñett la nee na wa kasun bu ne amel naa ko lu bari arbaatu ñeent lay doon ci kanam tuuti aw laa kasun wala muy lu bari wala xam di jóge ni néew arbaatu ñeent lay doon wa dirhamun bu ne amel naa ko dërëm al mutaaraf dërëm bu ñu baaxoo la koy jox wa ilaa ndem dërëm bu ñu baaxoo amu fa fa sal iyo la ko jox dërëm muy ko bu yoon nga ne waxu dina la ngof la ci soo jaram maanaam amel naa ko dërëm waaye nag bu ñu jar la in wasala ndem jokkale na ko ci kanam tuuti wa naq soo bu ne amel naa ko ab dërëm waaye dafa wàññi def na ko nangu in wasala ndem jokkale na ko ci mu ne ah dërëm la waaye bu wàññi ko la ci kanam tuuti wa dirhamun bu ne amel naa ko dërëm maa dir min ànd akub dërëm dégg nga de amel naa ko dërëm ànd akub dërëm dirhamaani ñaari dërëm la ci kanam tuuti dafa xadam aw tootoo wala mu ne amel naa ko dërëm dirhamaani ñaari dërëm aw foofoo wala mu ne amel naa ko dërëm boo xam aw wala mu ne amel naa ko dërëm foofoo boo xam nekk na ci kawam ab dërëm dirhamaani aw wala mu ne amel naa ko dërëm alayhi boo xam ne nekk na ci kawam ab dërëm diri amaani aw wala mu ne amel naa ko dërëm xablahu boo xam ne jëkk na ko ab dërëm diri amaani aw wala mu ne amel naa ko dërëm baadoo boo xam nekk na ci gannaawam ab dërëm diri amaani aw wala mu ne amel naa ko dërëm fa dir amun topp ab dërëm dirhamaani aw wala mu ne amel naa ko dërëm su ma dir amun topp dërëm dirhamaani ñaari dërëm la ko jox ma ne wasaqat rosot la nag fi ca wax jamono woon amel naa ko dërëm laa déedéet daldi nekk dinaaraani dërëm barok la ñaari dinaar la ko jox wa dir amul bu ne amel naa ko dërëm dir amul dërëm dirhamun ca kanam tuuti la koy jox dirhamun dirhamun la wax benn dirham ko wax aw wala mu ne amel naa ko dërëm bi dirhamin ci dërëm dirhamun nga ne wa alafa li net na nag maa araadahuma na mu ma ñaari dërëm de loolu lay jin mu nag mu duli nena leen ci jin te is aadi ni ci seerle fi sukkurin ci bon bi meetin ci téeméer wa fi aaxar ni ci beneen bi meetin ci beneen bi meetin ci beneen téeméer dafa bind waa ji dafa daf laa ameel téeméer bind ci benn banque téeméer bind ci beneen banque téeméer ñu wax ko mu ne damaa na mu dëgëral ko rek waaye benn téeméer la su génne ñu ne ko wax nga dëgg ba bi meetin bu ne ameel naa diw téeméer ba bi meetin ak ñaar téeméer nag sor lu gën a bari la ko jox ñaari téeméer wa jullu meetin bu ne ameel naa ko ñaari lépp ci téeméer sulu saani ñaari sulu su téeméer la koy jox mooy juróom ñaar fukk ak juróom dégg nga de ca kanam tuuti aw qurba wala ameel naa ko lu jegeñ téeméer sulu saani ñaari sulu la koy jox aw la waaw lu ñu koy nuru sulu saani ñaari sulu facteur wala lu gën a bari bi jaar ji kem farlu aake mu ne waa jàmm yàlla ndax yow sama dana ko war juróom ñaar fukk ci asad ci ameel naa ko juróom ñaar fukk ci kanam tuuti ci asad ci fukk ci asad ci fukk bu ne ameel naa ko fukk ci fukk ndax ñaar fukk lay joxe aw meetin wala téeméer lay joxe xaw naa ne am na ñaari wax wa saw bun bu ne ameel naa ko ma naan ci sondookin ci geer gaal su boobaa ma naan ma war na wa saytu bu ne ameel naa ko diw ci jaratin dégg nga de maanaam ci gutt ba tey diw ko war na ba fi li soo mi sarfii mi ci warul ndab la ndax kon su boobaa ndab la nag kon malaan ma dana ca boole gaal diw ga it dana ca boole maanaam gut ak ñàkk gaa waru ndab la xaw naa ni am na ñaari wax laa daa bit luuxuma daaba fi stablin bu ne amel naa ko daaba ci wudd fas daaba ja dong lay war waaye wudd ba warul wa alfun bu ne amel naa ko junni inista la ndem daganal na ko la ñel sam warul ci kanam tuuti dafa xadam ne wala waa aw axaara nii wala bu ma abalee malaanam dinaa ko jox junni la mu daal lay abal malaanam la ñel sam warul junni ba wala kayin alafa nit leen giñ na ci xëy dafa waa ci lu woote diw de bu giñee ma amel ko junni mu daal di junni te booba wootewul woon ne amel nga ko dara junni ba warul aw sayda wala bu seedee fulaanun diw ni amel naa la junni ma jox la junni te kooku xeeru ajun dum aji maandu waa ji daal tam ni seede naa junni ba warul waa ci saatu bu ne amel naa ko dina gàtt aw waa ci naaxatu wala jële naaga la si ma war ko dégg nga de saatu gàtt ba waaye nag wa ala fa junni alayaa ca naaga ga comme dafa ni xaaj i saatu aw xaaj i naaxatu gàtt ba moom war la moom la jëkk a tudd naaga gën a gën a junni amee lu ma ko waxasab toog du ma fëkk naa lii min fulaan tukkee ci diw laa di ban bayit min axara ci keneen laa ko fëkkee foofu moom loola lin awali ñeel na kam ñu jëkk a tudd waaye waxu daa tamit lisaani ñeel aji ñaara ja di ximati di xayma walaka bu ne amee walaka bu ne diw de ñeel na ko ñeel na la xadu soo bay ni kenn ñaari malaan yi xëy na la ràññee waa ji daf ne ni kenn ñaari malaan yi yaa ko moom nan nii mu ñuul mi wala mu weex mi way laa ndem ràññeewul kon ca fa in ay na ndem ràññee na al muqar ku ñu tudd ko loo ñeel ko ajwaduhuma ma gën a rafet ca malaan ya xala fa la jinni nii laa moom way in xaala ndem wax na laa adri xamuma moom mu xiru loxo ma ne ah may itam xaw ma mu ma ci moom de xala faa ni jinni ñaar ala nafsil ilmi ci bokk xam ci dàq xam ala nafsil ilmi ci dàq xam wa sarakaati ñu bokkaale dégg nga de maanaam ñaari malaan yi ku ne ñu am kenn ku ne am ca misif nga ne war si naaw fettee su naa ci buntu tudd te xëy yi mi ngi mel ne fettee ci lu dul buntu buntu tudd te mooy kon wasaxa wér na lowoo ñeel na jiw a daaru kër ga waaye nag wal baytu néeg ba lii ñeel na ma wér na léegi loolu wér na fettee bi xëy jum ci lu dul xeet wa de ka al fun ni ko amel naa ko junni ilaa ab danda rek jaam bu boobaa loolu wér na waaye nag su boobaa wasaqata rotat na xiimatoo xëy may jàmb ci junni bi dañuy rotal xëy may jàmb ci junni ba lu mu def ñu joxe ko wala way ne abraham dem dañoo na fulaanum diw mi maa ci lépp loo xam ne loo ñoon xibaloo ci wàllam soo ne diw de dañoo naa ko ci lépp lu ci sama wàll bari amul dañ mut laxal gumu ci àq yi aw min ay àqin wala jumu ci àq kon da nga ci kanam tuuti dafa xadam aw min kulli àqin wala dañoo naa ko ci bépp àq bari amul dañ mut laxal gumu ci àq yi aw abraham wala mu dañal ko ba tey bari amul dañ mut laxal gumu ci àq yi wa min xassin xas ñu la xasoon wa sarkat ak sàcc ba tey da cay dañ falaa tuqbal déefal nangu dax waaw wooteem gannaaw ba de nga ne amel na ma nangam nañ ko nangu wayen di sàccin doon ci bong la woon ilaa bi bay nit donte da ngaa andi woon bong gannaaw bay duñ ko nangu ilaa bay nit rek i seede yu ne ànd woon na ko moom bong bi ba doxoo gannaaw bi nga ko dañalee ba noppi la kon nag su boobaa ñu nangu nga ne wayen abra woon dem dañal na ko ñu maa ci loo xam ne maa woo ànd ak naa moom da nga ne diw dañal naa ko ci ne ànd ak moom bari amul dañ leen amaal ci kóolute kóolute mooy lépp loo ko dénk dañ la ca waaye laa day bor moom du ca dañ fasloon sëriñ bi nee na innama yastaliqu xamal naka dana yéeg lu labbu bàyyi mac wala nasi di ku ñu réere askanam in lam yu kasifu ndem seen loo ko alaqalu xel li saxar yi ngir ndawem aha te mooy koo xam ni yow gone nga fekk la mag ëpp nga ni maa ko jur kooku su boobaa ñun la yow kat li nga wax xel nanguwu ko aw xaalatu wala aada seen loo ko ni ki da ngaa gis pël fuuta bu jóge ci Guinée nga ni maa ko jur te yow wolof nga ñun loolu aada nanguwu ko in lam yëkkul ndem nekkul ku ñu yéeg lu ko riqan jaam li mu kasi bi ñal aji seen doom waaye boo fekkee jaamu jaamul nga ni maa ko jur ñun la da ngaa bëgg a yëkkati moomeel bi aw moo loolu wala muy mbaayal la léegi koo xam ne nag da ngaa fekk ñu goreel ko ba noppi nga ni maa ko jur ba tey ñun la da ngaa bëgg a yëkkati kilifteef ga laakin loolu fi nekk nag yu la ko def na ko yéegal bi ci moom su boobaa nag def na ko yéegal ci koo kii muy yéeglu mu sant santam kese boo fea nekk na ca mu diwal ay den ba tey nee na yu sa dox def na ko dëggal mu diwal nee na ku fekk ku ñu doon askanam muy jaamu jaamu nga ni maa ko jur ah def na la dëggal waaye nag sant saw sant dong de waaye nag saxoo donte goreel na ko mustari aji jëndam su boobaa it def na la dëggal inam yi sodala dem tegta léppul alaaka si biir ci felam waaye bu fekkee ne xam nañ yow mi ko wax da ngay fen su boobaa kenn du la dëggal nga ni ku yéeglu ku ñu réere askalam des na ko nangu wa in kabira donte mage woon na moom ka nga yéeglu aw maata wala mu dee du tee des na ko nangu waaye nag wa wari soxoo te doon na ko nga xam ne da wa wari soxoo dana ko doon la in wari soxoo dem doon na kooka in min doom dégg nga de nga xam ni ki nga ne maa ko jur fekk na mu am doom ju góor ju koy doon ba yow maam rek ngay taxaw taxawaayam yow mi koy yéeglu sudus rek ngay doon kooku des na ko nangu aw baaxoo wala mu jaayoon ko da ngaa jaayoon ab jaam jekki ba mu am ay at nga ni maa ko juróon sama dooma woon ba tey des na ko nangu waaye wan na ko def def njaay ma waa jaa mu dellu dégg nga de bi nafaqati yi ci dund ba dégg nga de maanaam ka ko jëndoon dana del si nga jox ko mboolem lu mu ko dundaloon innam takku ndem nekkul loo di ñaan ko xidmatu liggéey loo ca jàmba àllar gi jox dëgg na lëng ndem liggéey loo kon kon dana del si nga jox ko dund ba dégg nga de fayaat ko ak njëgam mu delloo la ko waaye ni daa ndeem wooye la istilaa daa juróom jébéer ba bi saadatam ci doom ji jur waa ji dafa jaay jébéer ba mu yàgg mu ni sama jébéer boobu kat umu warat la woon am na maa ngi moom doom ah fa xaw naa ni am nañ ci ñaari wax ci des na ko dëggal ak ñàkk gaa dëggal te cia yoo xam ne nekk nañ ca mut wàll ndax umu warat kenn sañu koo jaay wayen baaxaa ndeem jaay na dafa jaay jébéer ba fa wala mu jur fa salakoo mu yéeglu ko ne ah doomam jooju nag maa ko jël lay xëy ak doom ji waaye wala mi sax def ko dëggal ci ah dégg nga de ca jëbeel ba inu kii man dem tuumaa leen ko bu naabati ci cofeel aw adami samin wala ñàkk ngi aw jaatin wala muy borom daraja ah nga xam ne kon dañ ko tuumaal bi mahabbatin dañ naan bëgg ndaw si rek tax mu ni moo jur doom bi dégg nga de wala mu ñàkk nit nga xam ne dafa bëgg ñu delloo ko ko ca du joxe dara waaye nu muy def mu ne war a da delloot na moom aji jaay jooju sama laxaa njëgg wala xëte yëg bii ci moom la bii ci aji yëglu jooju alwala doom ja mut la xam moo xam tuumaal nañ ko ci cofeel wala tuumaal nañ ko ci cofeel mu ne wañu strandeem jënd na mustaxaqoo ku mu yéegloom wan mil ko tam mbir moom moomeel ga li xëy yi ñeel keneen moom doo fekkoon jaamu jaamur mu ni maa ko jur borom jaam ba ni ko da ngay sel mu jekki ba mu yàgg mu jënd ko xataxa jaam ba pare ndax moo ko waxoon te saa yi di nit ki seede lu dëgg boo xam ne delloof na saa de too seedeem dafa seede ni jaam bii gorel gor la sangam gorel na ko ñu delloo ko gannaaw ba mu dem jënd ko ñu gorel ko moom itam waral ko nga ne wañu talaka ndéem yërlu la xëy na wala duñ ko dul doom lam yëri su du ko doon yow da ngaa fekk nga ni sama mbokk doo dee du la doon in kaa ndem nekk la waaye sun aji doon ndem am nga keneen ko doon wa ilaa ndem nga xam ne amul kenn ku ko doon nag fa xilaaful am nañu wute ci kookee mu ni mbokkam ma dana ko doon nag du ko doon waaye waxatu ko jagleel na wute boobu nag almuxtaar la ñu tànn imaam la xam ne yu dinaa ci loo xam ne nag isaalam yettu ngeen yel ay xalaal tudd nga waaye su fekkee daa ngeen ko doxlante di ay doxum sikki bi nga ni moo la di sama mbokk kon nag soo dee mu doon la wa in kaa ndem wax sang li awlaaji amati ñeel doomi jébéeram li ahadum kenn ci ñoom day wala di sama dooma te moom sang la ah xam nga ni nag sang bu amee jëbeer doom doom ja moom bis bu faatoo sang ba bu faatoo doom ja day gore nday day day gore kon xataxa gore daf ko ko gën a ndawe ndax moom suñu nattalee ni moom mooy doom dana gore suñu nattalee ni ñaari magam yi ñooy doom ji dana gore wasulu sa la sut ak ñaari sulu su ko gën a digg doomu maanaam ka nga xam ne moo ne ca digg ba ñaari sulu soom dana gore ndax buñ nattalee ni ki mag mooy doom mooy doom moom dana gore waaye bu ñettalee ni ci rakk ji mooy doom ji moom du gore kon nag moom ñu jël ñaari sulusam ni ko goreel nañ wa sulusu nag bañ ak sulusu ko gën a mage ko gën a mage moom moom itam sulusam mooy gore ndax moom suñ nattalee ni mooy mukkirum bihiim dana gore waaye bu ñettalee ni ñaari rakk yi ñooy mukkirum bihiim du gore moo tax ñu ne ko yow sa sulusu mooy gore ñaari way def taraka ndeen teqalikoo na umaatum seen i ndey nag kon nag waaye kenn dong moo cay gore bu ko ci wantale way saa war a ndeen jóg la sawjatun jabar sawjatu rajulin jabari góor wa amatu axar ak jabaru keneen waxtaan taa jaxasoo seen ñaari doom ya ay nag na ko ràññee al kaafatu xaafa xaafa na ko ràññee ñu diw mii moo jur diw gone gii diwa ko jur gone gee diwa ko jur ndax xaafa loolu yeneen taxaloon na ko ci hadiisu Aysa radiyallahu taala anha arab amoon na ci ñoo xam ne buñu jàkkaarloo ab liir rek ñu diwa ko jur waaye Ibnu Qaasim jëlee ci Ibnu Qaasim fii man ci koo xam ne wajarat fekk la jigéen joo xam ne wajarat fekk la maa imité ànd ak doomu bi jigéen uxra jeneen doom bi jigéen maanaam jigéen dafa jur sànni doomam keneen jur sànni ñu daje ñaari doomi jigéen ñu ne laatu laqu dee ko yéegal bii ca dégg nga de maanaam jëkkër ja waahidun kenn min huma ci ñaari doom yooyu am na ñu ne jëkkëri ndaw soosu kenn du ko yéegal kenn ñaari doom yi ndax askan bul fàtte ne ñaari way maa ndoo koy saxal wa inama tatamidu xamal nag dana sukkandiku alxaafatu xaafa ala bin ci bàyyi lam yëpp tan boo xam ne rodeefu ko wala ba bàyyi buy dund ala bin ci bàyyi buy dund moom la xaafay sukkandiku door caa mën a yéegal gone ga wala muy bàyyi buy dee lam yëpp tan te rodeefu gu ko xaafa mën na caa sukkandiku yéegal tekki am na ca gone ga wa in aka wax boobu yam foofu sëriñ bi ne wa in aqara ndeem tudd na addalaa ni ñaari way maandu ñu bokk ca donoy ku faatu ko di saalisin ci aji ñetteel sabata tax na sa bu askanu su fekkee léegi am na ku faatu ñaari way maandu ci donoy ni diw nii dégg nga de moom itam dono la askan wa sax na bu addulul su fekkee jenn aji maandu moo ko wax yelli fu dana giñ maahu ànd ak moom wayelu si te mu doon ni ki ñaari doom yu góor yoo xam ne seen bàyyi dee na ñu andi ko ñetteel ni kii suñu doomi bàyyi la su boobaa askan wa sax na bu ñu maando mu ànd ak ñoom doon su fekkee kenn képp ko tudd nag su boobaa bu amee bu giñee ah kenn ku maandoo ko tudd bu ki ñu mokkarum loxoo giñee ànd ak moom mu doon waaye nag walaa na sa ba askan wu du mën a sax tax ne naan askan ñaari way maandoo koy saxal su ko defee nga ni wa ilaa ndeem maanduwul dama ne at wa addulu wa ilaa ndeem ka tudd maanduwul nag kon fa isatu mokkir cëru mokkir kan maa dañ koy def nekki alal ni ki tey ñaari doom yi nga xam ne seen bàyyi dafa faat kenn ka daal di tëb maanduwul daal ni andi keneen mu taxaw mu ni kii suñu doomi bàyyi la su boobaa ñii li ñuy def alal de dañ koy def ñetti xaaj su ko defee boo ko tombee juróom benn ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu xam ne ñooy doomi dëgg yi kenn ku ne waroon a am ñett muqir mi nga xam ne moo tudd ni kii suñu doomi bàyyi la ñu ni ko ñett yi nga am benn bii nga xam ne moom la la moom nga moom nga ni kii mooy seen doomi bàyyi jox ko benn bii nga xam ni mooy sa ñetteelu li sa wàll maanaam li nga moom dañ ko def ñaari xaaj nga jël benn ba jox ko ndax su fekkoon ne dañ ko nattale muy doom moom kii waaj a tudd kon ku ne ñaar ngay am ci tomb yi waaye nag comme duñu nangu ki tuddul moom kenn du laal wàllam mu jël benn tomb képp jox ko su ko defee ñu ni ko sa mbokk mi nga xam ne moom tudd kenn wàllam dara ji ci jox kon nag jox lañ ko sudus ba muy ñetteelu xaaju ka tudd sëriñ bi ni waxaasa bu nekkee ak sa mbokk la bal bi xaasaa kee kii bàyyam dee na mu dikk taxawal kenn ni kii sama mbokk la ñu wax mu ne ak kee kon falil awali ñëw na ko jëkk ka nis fi si addi yi genn wàllu doon a bàyyi comme njëkk ni sama mbokk la ñu xaajoo alal ja wali saa ni ñeel aji ñaareel ja nis fi maa baq ya genn wàllu la def la fa def ñu xaajoo ko moo ko comme comme mu jëtutu wax boobu yem foofu ñu ne wa in taraka nem bàyyi na umman ndey wa aqan ak mbokk fa aqara tudd ndey daqin ci mbokk ndey ne ah am na sama beneen doom ah te léegi waa ji bi mu dee ndey la fi bàyyi ak mel na mbokk dégg nga de xam nga ndey ak mel na mbokk ndey daa war a doon sulus mbokk mi doon ñaari xaaj yi falu kon falohoo ñeel na mukkirum la xooma mooy mbokk man lay tuddal min haa ci doonam ndey sudus sudus kon su boobaa moom itam nii lañ koy def dañ ko ne ndey da ngaa war na doon sulus mu ne waaw ñu ne ko sulus boobu nga war doon nañ ko xaaj ci digg bi nga jël benn jox sa mukkirum la xoo ko nga tuddal benn su ko defee waaye sa doom bi nga xam ne moom tuddul dara wàllam bi dara du ci wàññi ko moom itam noonu lañ koy def wax boobu yëpp mu ne wayn aqaran dem tudd mayitun aji dee daanna fulaan naka jub jaariyat oo ma dib jëbeeram wala da jur na min hu ci moom fulaanatan jub loolu la wax de ah su boobaa walaate ñeel na ko ibnataani ñaar doom jigéen ay doon betey wa na fi at na fi at ñu fàtte ka ka mu tuddoon alwal su way doon ya wal baynatu ak seede ñu fàtte ko kon na feet fayn aqaran dem tudd na bi daal ko ci loolu alwal su way doon ya ñu ne wax na dëgg kenn ka moo ko jur taxu na ñoom ñëpp araanu ay gor lañ waaye wala xun na ñeel leen miraasu bintin dorop benn doom bu jigéen lañ leen di jox dama ne woon fa in aqara bi taalik alwarsatu wa ilaa ndem way doon ne nanguwul ñu tudd nag ne aha kay doomam la kon nag la ñax tudd gore sayul dara waaw waaw nga ni wayn talaka ndem yéeglu na wala dal doom su ma an tara topp mu weddi ko waa ji dafa ne kii sama doom ah yekki ma mujj mu weddi ko su ma maata topp dee ala wala doom ja kooku nag fala yéegi soo du ko doon de ñun ni ñuy def mënu woo ko taxaw def ne maalohoo alali koo kay mu yéeglu woon léegi nag fa in maata ndem dee na moom mi ko yéeglu woon fa alal ja li war ko ci ñu jox ko ay donoom góor gi daal bi ne kere maa ko jur ah wëlbati ko weddi ko su dee alal yi ki mu yëglu woon kenn du ko ko jox waaye nag moom bu dee ñu doon yëkkati alal ji jox ko ay borom ba ko dee def na faye bii ci alal yi kookee mu yëglu woon day noo ay borom waaw waaw bu al- bu bàyyee borit ñu jël ko fay ko ci wayen xam ne taxaw na borom maa woo woy fa yoom waxuma moom ay muy aju dund axasoo ko ñu jàpp ko sëriñ bi nee na baabul al idaahu dénkaane tawkiilul mooy wakiil bi istimaalin ci wattu alal tur mënu def na ko warlu bi sukkooti fayin ci rotul lëf alayha ci kawam su fekkee da ngaa dénk nit dara dara daanu ci kawam toj gis na ko war na waaye laa ngi kisaroo xuma neen damm na ci naq ni mis laa ci toxal kemam su fekkee kan ko dénkoon da ko doon toxal yàlla dogal mu toj kooku du war na wa dana war na bi xalti ci jaxaseem da ngaa dénk nit dara mu dem jaxase ko yeneen mu sànku dana war na ci laa tax xamin dara xamu mu jaxase ko bi mis lii ci kemam di iraat ngir wattu ci kanam tuuti su fekkee da nga ko dénk pepp mu dem jaxase ko peppam nag ngir wattu kooku moom bu sànkoo du war na aw drahima wala ay dërëm mu jaxase ko bi dinaar ci dinaar li iraat ngir wattu kooku bu sànkoo du war na su may talifa topp ngeen sànku na baax doxoo lenn la falu sànku la bay na commande nekk na seen diggante su fekkee tey dafa jëloon aw ay dërëm moom dégg nga de jaxase koog say dërëm su boobaa bu sànkoo dégg nga de la fa def la sànku yéen ñëpp la sànku la maanaam li ma bëgg a wax mooy boo ko dénkoon téeméer mu jaxase koog ñaar téeméeram ñu lépp jël ñu sànku ca téeméer ñaar téeméer ya fa def da ngeen koy def ñaari xaaj ñetti xaaj mu jël ñaar ya nga jël benn ba ndax ñaar téeméer la amoon nga am téeméer nga ne mu ilaa yetta maye ndere boo jeqiku la bu fekkee la nga xam ne nag moo fa def lu jàqiku la ah su boobaa kon te sànkule mooy ñàkk nga ni wa dana warlu denc saay ci jëriñoo daa ci ndénkaan ndénkaan buñ la ko dénkee nga dem jëriñoo ko nit ki dénk la malaan nga dem di ko sol da nga warlu mu ni faaw mu ni ilaa tura dandre boo delloo na ko saalimatan mi aji mucc soo ko delloo see dencaat ko te dara ci ku ci nag kon doo warlu aw safar yi wala tukkeem ah da ànd ak lañ ko dénk in xadara dem attan na alaa ni ci dénk ku ñu wóolu bu tukki waalee moom kooku moom itam dana warlu e ilaan toro dandre boo delloo na ko ci kanam tuuti saalimatan mi aji mucc nga xadam ñu ne waxaam na araam na salafu mu xaw min leb naf lu ñuy xayma ni ki ñu dénk la marché nga di ko leb araam na wa mu dimin ak araam na lebu aju ñàkk ku amul dara araam na ñu dénk la nga di ko leb boo ko ci def na naq du leb kee maanaam ñu dénk la wuri sa xaalis nga di ko leb sim nañ ko wan nit ñi ak koju kem mooy koju kem mooy lu ñuy peese wala lu ñuy napp sim nañ nga di ko leb te ci jaat ina ci yaxantu moom itam danga naan sim nañ ko buñ la dénkee kee nga di ko ca def bu tabbate wàcc wari ko tola jël loxoo ñeel na ko yaa moom sa tola bu nga ne ma bari adda ñett na nag moom ku ñu dénk in raddan dem delloo si na lañ ko dénkoon te xëy la mu leb ci ndénkaan ba te xëy na mu xar min dumuluñu araamal ak lebam maanaam su fekkee tey da ngaa leb ci ndénkaan bi ah dégg nga te loola du du lu araamal leb soo ko delloo si dañ la ñu ne faaw mu ne ilaa bis ne ndëri ci ndigal su fekkee nag tey maanaam waaji dala ni digal naa la nga leb ci lii ma lay dénk soo ci bëggee leb lebal kon wa dami ne warloot na ca kanam tuuti almaa ko so lu ñu jàpp la faqat dégg nga de wëlif la ca def kon nag la nga ci jëloon rek ngay warlu waaye doo warlu ci def aw yaqoona wala mu ne ko ini sa ca ndeem aajo woo nga faqus jàppal kon su boobaa war dana la war ne almaqoos lu ñu jàppale faqat wulif la ca def doo ko war na aw bi xoof leen wala ci xomb maanaam dina yéen ci tere buñ la dénkee dara ne la bu ko xomb nga dem xomb ko ndax xomb dolli xemeem la buñ ko sàccee kon da nga warlu aw bi wat dina aw bi wat wala ci tëral di nuhaatin ci ndabal përëm fi am rii ci ndigalam di fa xaani ci ndabal booma booba mag ñi dañ daan dénkaane dégg nga de ca booba dañuy wut ay njaq di ca def lu mel ne wurus ak xaalis mu dénk la ko ne la na nga ko def dégg nga de ci ndabal boomar nga dem def ko ci ndabal përëm ah su boobaa loola day xiir sa sañul di toj ko kon su boobaa buñ ko jëlee da nga war waaye laa in saada waxuma ndax ndabal boomar li moom boo ko ci defee duñ ko yaakaar mu ne laa in saada waxuma neen dolli na xuf lan xomb kooku du warlu de dañ la ne tëj ko nga dem wut ñaari xomb far kon su boobaa doo warlu buñ buñ ko sàccee aw xak sa wala mu jëpp il faxaari ci ndabal boomar la dañ leen nañ ko def ci dégg nga de ndabal përëm yow nga dem def ko ci ndabal boomar ngir bañ ñu xemmeem ko kooku buñ ko jëlee doo war aw amara wala mu digal ko bi rabtin ci yeew si kummin ci lox ci lafu mbubam ni ki ki la dénk danañ na nga ko fas ci sa lafu mbubu na nga ko ci yeew faaqasaa mu jàpp ko téedi ci loxo yàlla dogal ñu sàcc ko kon su boobaa dégg nga de wala mu wadd réer doo warlu mu nekk jëy bii naka defoo def ci jibaam su fekkee tey dañ la ko dénk ñu def ko jiba sa jiba ñu sàcc ko doo warlu su la dénk xaalis ñu tafu ko doo warlu alal muxtaar yi nga ne na war dina warlu ba tey bi ni siyaane ak fàtteem du naw di idaay ci bërëbu dénkaaneem yow tey dañ laa dénk nga fàtte ko fañ la ko dénkee yaa koy warlu wa dana warlu bi xooli ci xarafam alxamaama néegu amaam bi a ànd ak dénkaan ba yow da ngaa dem dugg néegu amaam ànd ak moom da nga warlu wa dana warlu bi xuróo ji ci génnam bi a ànd ak dénkaan ba yesu naa muy jot ko loxoo ñeel ko fa talifat mu sànku dañ laa dénk nga yóbbaale ko génn ak moom defe ni yaa ko moom mu sànku da nga warlu waaye laay na yaa xuma neem fàtte na ko fi kum yi ci lafu mbubam tey da nga koo fàtte ci sa lafu mbubu far mu réer wala ñu sàcc ko kooku fa waxaat mu wadd mu ngoog kon doo warlu wala in sat dégg ndem sàtt na xale yi waral ko damaana warlu yow dañ lay dénk ne la ah da nga may fay nag bu réeree kooku doo warlu ndax loolu di cosaan ci ndénkaan nga ne wa dana warlu di idaaya ci dénkam dénkaane waatam bu indi safaram doon ci tukki la mu dem dénk ko li xëy soo jot ñeel ko dul jabar waa matin ak lu dul jibéer mu ci daal loo xam ne baaxoon na leen dénk bi saalika ci loola waa ji daf laa dénk loo xam ne warees na koo mën a dénk sa jabar booy tukki wala sa jibéer nga dem dénkaane waat ko keneen ah te fekk da ngay tukki da nga warlu maanaam bu sànkoo foofa yaa koy fay ñu ne faaw mu ne idaane xawratin da rek rab xadasat boo xam ne sa suna ca kër gi sa kër miir ba dafa daanu nga xam ne boo ko fa wàccee sàcc si mën nañoo ñëw jël ko nga dem dénkaane ko keneen kon doo war aw li safar ni wala tukki inda xaj sirat yi fas ba nga lottee ca delloo ga ndax bu fekkee ne borom dafa fàddu maanaam tey ca la ko dénkoon tukki na yow itam ngay tukki mënoo ko koo delloo tax nga dem dénkaan ko keneen kon su boobaa su sankoo doo war nga ne ko in oodi xandeem dénkeef na di safarin ci tukki maanaam tey da ngay dénkaane waat dénkaan bi aha ci tukki kon nag wajaba war na ishaadu seerle da ngay seede loo ñaari way maandu bir xutri ca ngant la ni leen ah lii ma diw dénkoon kat boo ngeen gisee ma di ko dénkaane waat damaa am ngant ndax sama kër wóorul looloo tax ma di ko dénkaane nga ne wa bari addañat na nag moom ku ñu dénk ka in rajaat ngeen dellu si leen dénkaan ba saalimatan di aji mucc waaw waaw su fekkee tey dañ laa dénkoon ngay tukki dénkaat ko waat keneen yàlla dogal dénkaan ba nga dellu si mu ñëwaat mel na meloon yow dañ la bu sànkuwaatee sa loxo it doo warlu waaye nag wa alayhi war na ko istibjaam wa ak jëllu fiem inna waa ndeen yéene na ci tukki ba al iya ba ñibbisi yow ba nga koy dénkaane waa da nga ni bu ma ñibbisee danaa ko jël loolu nga yéene kon nag su boobaa boo ñëwee na nga ko daal di jëlaat dikk denc nga ni wa dana warlu di baxtati ci génneem biyaa ànd ak dénkaan ba tey da ngaa dem jox ko nit ñi ko dama joxal ma ko borom mu di ko yóbbu mu war da réer yow yaay warlu wa dana warlu bin saa yi ci toggam alay xaa ca baaba ya te mut lañu dee boo déggee togg mooy tëblu waaye mag ñee ko daan firee noonu dañ laa dénk ay wajan nga dem tëblu leen ñu faatu bu kon yow da nga warlu wa ñu ne xanaa booba dañoo dee ca tablu ga mu ne wa in min wilaadatin doon ca jur ga la dee da nga warlu mu ne kàmmatin ni ko jëbéer buñ la dénk sama jaa koo xam ne sëy loolu ko famaatat mu dee mu ne wilaad ca jur ga yow dañ laa dénk jëbéer nga dem may ko jëkkër muy am doom par faatu da nga warlu wa dana warlu bi jëx diyaa ci weddi ndénkaan ba léegi dañ la ni waa ji da laa dénk dikk laaj la ko nga ne ko mosoo maa dénk dara da nga de mu taxawal ay seede yu ñu dénkoon na la da nga warlu mu ne suma si xabooli bay ni ci raddi topp mi ci gannaaw mi ci nangu seede yi delloo ga la gannaaw boo weddee mu taxawal ay seede yu ñu dénkoon na la nga andi seede yu ni delloo naat ndax def na ko nangoo nga nga nangu nga ne xilaaful am nañ ci wuute sëriñ bi nee na ko dana warlu ba tey bi maw tii ci deem moom dégg nga de ku ñu dénk ko wala mu yóosi te dénkaanewul ni lii kat di wa ko moom wala mu yóosi te fekkee su ko ca mbacceef la kon su boobaa dana warlu maanaam danañ ko fay ci alalam ilaalika singal dana ni ko fukki at su fekkee bañ ko ko dénkee léegi mat na fukki at buñ ko ca fekkul dañuy yaakaar ne delloo la waaxa saxaa jàppat na ko nag moom kañ ka ko dénkaane woon in sabata ndem sax na bi kitaabatin ci mbind alayha ca dénkaan ba ni annaha naka moom dénkaan bi la hoo ñel na ko dégg nga de tey bu fekkee tey waa ji de dafa dénk nit ki waa ji faatu ñu fekk ca biir biir maanaam dencukaayam mu bind ca aw kayit taf ca ñu ni anna saalika naka loolu yi day ah dama ni annaha naka moom dénkaan bi la hoo ñel na diw te anna saalika naka loolu xattu hoo mbind ma ñu ni kii mbindum jiwa ah jiwa ca bind turam ni maa ko moom kon nag aw xattul may ti wala mbindum aji dee jaa su boobaa ñu jox ko ko mu dem yoon ma ne ma dana warlu ba tey ku ñu dénk bi say ci doxam daa ànd ak ndénkaan ba li mu saa jëm ci barabu tooñaange dañ laa dénk day dara nga ab xaalis wala yu demee noonu nga dem maanaam barabu bandee ñu jël ko da nga warlu wa dana warlu ba tey bi moom ci morsal ci deew ku ñu yónni maaw ànd ak moom li bàjj ba ci réew te la muy sim dem jotul illee jëm ci réew ma da ngaa jox nit alal ni ko demal yóbbul ma ko Gàmbi joxal ma ko diw mu dem ba ca yoon wa mu dee ñu seet ay poosam bi suñu alal ja yow mi ko yónni woon da nga warlu bu tee nga fayaat de mu ne wa dana warlu bi kalu si soo biñ ko demee ne ko war doo malaan dañ laa dénk malaan nga di ko sol da nga warlu waru koo bi daabatin war daaba dañ laa dénk daaba nga di ko nga dem war ko koy da nga warlu wal xaw lu wax ja nag la hoo ñeel na ku ñu dénk sa ba mu ne annahaa naka annahoo naka moom rabbahaa delloo na daaba ji delloo na dénkaan ba rek saalimatan muy aji mucc waaw waaw tey ba nga xamee ni jëfandiku nga ca daaba ja wala jëfandiku nga ca malaan ma ni waaye nag delloo ci waat naa ko mu mel nam meloon ah kala dénkoon ni da ngay fen yow la ñuy dëggal in akara ndem tuddoon na bil fii li jëf ja ndem nee na ah wax dëgg yàlla war naa daaba ji benn bis waaye indi waat naa ko dara jotu ko sol naa malaan mi benn bis waaye delloo ci waat naa ko dara jotu ko kon la ñuy dëggal ko ci loolu ne ni way akara ndem tontu na daaba juñ ko dénk li màkkati ci màkka war a jaxat mu dellu si di xaalaa ca mbiram ma kon nag su boobaa ah way akara doon tontu woon na ko li màkkata bu màkk ngay wax war a jaxat mu dellu si di xaalaa ca mbiram tey bu fekkee da nga dañ laa dénk daaba nga luyee ko mu dem ndakaaru ba waaye dil si waat na mel nam meloon koy su boobaa borom du la topp dara ilaa annahu ndara naka moom nag xabasa a téye na ko an aswaqa walif jaba su fekkee nag da nga koo téye ba heure ba nga ko war a jaay mënatuñ ko caa jaay kan bu la baa fa lakka ñeel la yow mi dénkaane woon xiimataa xëy may daaba ja yow ma kiraay bi su tontu ba waaye walaa kiraa doo am tontu la su boobaa bu la neexee nga laaj ko ni ko waaw jox ma sama xëy may daaba ndax comme yaa ko téye ba mënuma koo jaay jox ma xëy ma ji waaw bu la neexee nga def loolu aw ak suhoo wala mu jàpp tontu ba maanaam la mu ca fam ko tonte woon ba ndakaaru nga jàpp tontu boobu wa ak suwa ak jàpp daaba ja ñaar yooyu lañ ngay tànnaloo laaj ko xëy may daaba wala nga jàpp tontu baag sa daaba dem sa yoon nga ne wa ndeem wa dana warlu ba tey di def yaa ci jëñam moom ku ñu dénk mu dex yéen muy ajo waaye an an naka naka yow amatoo digal nga ko bii ci jëñam tey waa ji da nga koo jox xaalis da nga di dénk ko ko mu jekki ba mujj mu ne la yaa ma ko joxloo diw nga ni ko joxloowuma la ko moom dana warlu mooy moo lay fay waaye wa alas te giñ nga nag yow itam ni ko wallahi joxloowuma la ko kooku la wax wa ilaa ndem nangu woo giñ xalafa mu giñ wa bari amu dem dem yoonam mu ne faw aha moom daal bu giñee dem mu ne ilaa bi dégg nga de dama ne woon moom dana giñ mu ne ilaa bay nitam dara ci seede al amil waral aji digal ji su fekkee nag moom dafa am ay seede yu ne yaa ko ko joxloo diw mooma kooku moom du ci giñante dama ne woon su fekkee ni jox na ko nit dana warlu bu ko defee boo giñee waaye war a ja delloo nag moom moom yi bu la fayee ba noppi alal xaabi di waral aji ngëb ji comme comme comme ko jox da nga ko noonu joxloo wuma la ko soo giñee moom dana la fay waaye bu delloo ci kooko kooko fayaat wax boobu yam foofu ma ne wayen baasu leen yónnee nga ilayhi jëm ci moom dimaalin ci alal fa xaala mu ni sadaqta sarxe nga bii ci alal ji alay ci man da ngaa jël xaalis yónnee nit mu daje yow ne la ah gis naa sarax sang ma saraxoon naan kat sa nga weddi ni ko dee dama la koo dénk wa rasulu ndaw la saay duñ seede la ca def gone ga nga yónni woon la ñuy woo wala kooka rek ni ko waaw bañ la yónnee luñ la waxoon mu ne waa jaam yàlla ba nga déggee ndaw la mat na ca seede mut la xam moo xam alal jaa ngi def ci loxoom wala alal ji dëkkutul ci loxoom aw wala moom kay ba ca ndaw lay mat seede xanaa in kandem nekk na almaalu alal ji dégg ci loxo waaye bu alal ji sànkoo ndaw la dootu ci mat seede ndax amaana da ko yërëm dootu nangu ni dégg nga de maanaam ndénkaan la ngir yërëm ko taawi laa ni am na ñaar jëm tam mu ne ma dana warlu ba tey di def waara di ci woote delloo ala waar ci ko waral aju doon sa da ngaa dénk nit alal mu dajee yow nga ne ko jox ma sama alal mu ne jox naa ko say dono dana warlu aw mursali wala ku ñu yónnee ka yi lay jëm ci moom al munkari kadi aji weddi ndiki tey da ngaa jox nit alal ni ko demal joxal ma ko jiw mu dajee kooka nga dajee kooka ni ko alal la ma la yónnee woon mu ne joxuma dara kooku dana warlu fa alayka ni ki delloo naa la ko dégg nga de da nga koo dénk ni ko laaj ko ko mun la delloo naa la ko kooku dana warlu in kaana dem nekk na loolu ñeel ko bayinatul ay seede loxoo ñeel aji dénk de bayinatul ay seede dégg nga de ku ñu dénk te bayinatul ay seede max bi ci ndénkaan ba maxsuudatul seede yi bi ñuy jublu su fekkee ni fii tey amoon nga ay seede yoo xam ne ba nga ko koy jox dañoo taxaw kon bu ne delloo naa la ko duñ ko nangu waaye nag boo amuloon ay seede kat bu la ne delloo naa la ko ñu nangu ko loolu mooy mas ollu waaye laaj bi dafa waa tarafi waxuma woo teg sànku de aw ade eno ñàkk xam bi taraf ci sànku ba kooku nag du warlu bu fekkee daf laa wooy ne la ay waay la nga ma dénkoon sànku woon na bu yàgg kon nag su boobaa dégg nga de damaa xamul woon ne sànku la waaye sànku la wala réer la ay diyaa i mooy réer kon su boobaa du warlu waaye wa alafa gi ñëpp na al mu taamu ku ñuy tuumaal de bu wootee ni dafa sànku wala dafa réer te moom ñëpp xam nañu daal nekkul nit ku jub lool kooku dana gini dégg nga de ah waaw wala mu yëfit u du jëriñ nag dégg nga de wala mu yëfit hu du jëriñ ko it moom ku ñu dénk sàpp na fi yaa sàq dàq warlu dara ni yaa ngi may dénk waaye ah su ma wootee ni delloo naa la ko wala réer na kat du ma warlu kooku su boobaa sàpp boobu du ko jëriñ dara bu dee ku ñuy tuumaal dina waat fay nak la ndem ñu ne moom ku ñuy tuumaal kooku xalaf te déggiñ mu fay la wala in sat dégg ndem sàpp la daf ajën ga li mul sa li ñeel ku ñu yónnee ka ilay jëm ci moom bilaa bay nit ñu seede ndaw li dala ni da nga ko jox alal ni ko joxal ma ko diw mu ne ah mën naa ko ko jox waaye du ma ko wutali seede nga ne ko d'accord su demee waaja weddee ni joxuma dara du du warlu dara ndax moo la ne woon dinaa ko jox ci lu cee da nga nangu wala wa dana warlu bi xawli yoo xam jamonoon sali fa sànku na xam laa tan xaan jëkk na dajeg man ba dama nii ginnaaw bañam dafa àggina da nga koo laaj sa ndénkaan mu bañ la koo jox ngeen toog ay di ab diir mu ne la ba nga daataan dajeg man takk la ko réer ñu ne ko loolu duñ ko nangu da nga fay mu nekk xawli yi naka waxam ba doxoo gannaaw ba bi la dégg de maanaam boo déggee ba doxoo mooy gannaaw ba ngeen dégg nga de ba doxoo gannaaw ba ngeen dajee ba noppi mu ni ah sànk woon na bi laa usulun ci lu dul ngant aha maanaam gannaaw ba ngeen dajee mun la sànk woon na ci lu dul ngant kooku dina war na mu ne faaw waaye nag laa in xaaloo xuma ne wax na laa adri xaw ma matee talifat waxtu waxtuum sànkoo kooku du war na su la nee xaw ma wan waxtu la sànku nag kooku du war na sëriñ bi nee na wa dana warlu bi man yaa ci bañam dégg nga de atayaat ya ba dikkee alxaakima akim da nga koo laaj sab nin kaan mun nga duma la ko jox mbate akim dikkee ah su boobaa gannaaw boobu réer dana la fay inam takku ndem nekkul baynatul ay seede ndem nga xam ne nag amoo ay seede yo yow itam ba nga ko koy jox dégg nga de waaye bu fekkee ba nga koy jox dafa amoon i seede mu ne la duma la ko jox ci taxawuñ ci kanamu akim kooka nag moom wax na dëgg waaye laa kaan waxu mu ne wax na daa at sànku na mëntu si nii na ay at su fekkee da leen sànku na ay at kooku nag moom du warlu wa kuntu nekkoon naa arjoxaa di yaakaar ko ni dinaa ko gis waaye gisuma ko kon su boobaa du warlu wala xadara doonte teewoon na saa yi ba borom ba yaa ngi ci dëkk bi mu réer ay at mu di ko war gisu ko it bu la nee réer na ay at du warlu mu nekkal xiraal yi nekk alal xiraal amil woote ne sànku na bu yàgg kooku du warlu walay sa loxo déddi ñeel dégg nga de maanaam ku ñu dénk sañul ak su jàpp min ha ca dénkaan ba li man ñeen koo xam ne sala moo tooñ na ko dimit yaa ci kemam waa ji daf laa ameel xaalis tey daf laa ameel fukki junni dénk la téeméeri junni nga ne naa ci fayu fukki junni yamma amee lool déedéet loolu suñu ndax yonent bi nee na addi amaanata liman ihtamanaka wala taxun man xaanaka rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimina laka wa min suryatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbi inni nasatu laka ma tubatni muharraran fa taqabbal minni innaka anta samiul alim